li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaasal min na baalik maam bu ne jaara am nga tawfiix ku gëm fabal tudde jaara turandoo jaara ajjanaay wàccuwaayam koo mën doon santal ci fi jaara turandoo jaara ajjanaay wàccuwaayam koo mën a doon santal ci mbaax gi fi jaar rabbi karimun waasihun wa yufadilu wa wasilati abdul ladayhi mufadalu rabbi karimun waasihun wa yufadilu wa wasilati yaa

asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare bu baax a baax di sant suñu boroom ci xéewal gi nga xam ni defal nañ ko ci bis waaye nag di sant sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy xalifa général di murid di ñaan suñu borom subhaana wa taala kattanal ko ta may ko wér yaram naal yi mu am ngir defal ko sëriñ Tuuba bi ko yëpp suñu borom mottali ko ci ni nga xam ne noonu la ko bëgg yàlla ko suñu borom defal ci coobareem xam naa li nga xam ne moom lañ wax rek ni moom lañ bëgg ñu leeral ko euh, ci barab bi xam naa danañ ci gàtt xam-xam lool danañ ci gàtt xam-xam ndax teen bi nga xam ni moom ngeen bëgg ñu wax leen ci dara dañuy wax ni euh, teen teen teen bii nii dañuy wax ne soxna Faati Ja moo ko santoon sëñ Moodu Maamun mu maam Seex Anta ngir mu euh, sekkli ko gannaaw bi nga xam ne soxna si jóge ne fay at kon daa mel ni kon daa sakkoon waaye sëñ Moodu Maamun moo ko sakk moo ko sekkarti ban man caa root waaye bi loolu lépp jàllee nag li nga xam ne moom lañ ci defaat ki nga xam ne moo fi wutu woon euh, Cheikh Amadou Bassir muy Cheikh euh, Serigne Moustapha moom moo ko tabax bi ci nekk bi ko wër nii moo ko defaat ba ci euh, organisation bassin yi ci nekk loolu luñ ci dolliwaat la waaye teel la teel la boo xam ne rek daa nekkoon ci benn barab noon rek ni fi fa cum waaye gannaaw bi nga xam ne Porokhane gent na ba dem suñu mudu woon maam si Anta lañ wax ne moo moo ko sekkati waat waaye bi ñu ko sekkati waajee li nga xam ne moo tax ñu ñëw fii nag di ko di fi root di ci barkeelu loolu kon day mel ne ci sosu màggal gi la sosoo kon bi màggal gi sosoo kon ci la teen bi eh, nag tàmbali nit ñi di ñëw di ci barkeelu lu njëkk la amoon ndax dekkalu Porokhane moo tax ndax dëkk bi dafa raafoon ba jeex kon loolu moom mooy li nga xam ne moom lañ mën a indi ci cosaanul teen bi bu dee nag ndox mi nga xam ne dañ ko ci barkeeloo loolu moom ku ne xam na ne ah, jëmmi soxna si rek moo tax ñu di ci barkeeloo ndax fi la liggéey liggéey la boromam waaye tamit doon roote diirub li fi nekk donte at yi mu fi am sax bëriwul donte men at mi sax matut waaye tamit barke bi la tax mu doon ko fi def rek barke boobu dafa nit ñi di dabuwaat ndax day mel ni boo xoolee fii ci Porokhane ku ñëw da nga yóbbaale sëri cam ndox waaye boo dee fee ci Touba tamit ku dem da nga yóbbaale sëriñam ndox ci maaw rahmati waaye ko dem màkkatal mu karama tamit da nga indaale sëriñam ndox ci sam-sam kon loolu ak nuróol rek kon xam naa ñoo ngi yem ci loolu rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki julli di mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax di ñaanal sunu kilifa gi sëriñ Muntaxa Bachiru sunu sëriñ suñu borom bàyyi ko fu mu yàgg fi loolu te ak mboolem waa kër sëriñ Tuubaa ah, liñ ciy dolli rek xam naa lu néew la ndax kilifa gi eh, lu ci bëri jot jotale na ko Euh, ànd bi rek laay am lu may leeral tuuti ak li ñu fi suñu teewaay teewaay bi mooy ñun ñi ngay gis nii ñëpp ñi sol sile ak ñi sol bat ak ñeneen ñi ci des ay dongay daar yi sëriñ Muntaxa yoo xam ne da leen a yaral boppam ñenn ñi watt nañu alxuraan ñi ngay gis ñu toog ñu nekk fi ñu ci ëpp ci ñoom watt nañu alxuraan ñenn ñi dañoo tarbiya ba yeggal suñ bi nag moo sàkk avant tout lii di am ñuy ñëw di jàpp ci liggéey bi bu luy jotee moo nga moom nga gis nii ñu ñëw ñëw ñenn ñi jukki ñenn ñaa ngi teen ba ñenn ñaa ngi ca kër nekk ca dale waaye képp koo ci man gis ñoom rek xaafisul quran la wala bu ko nekkul nekk na ab murid saadix maam sëñ bi def na ci moom tarbiye gu mat sëkk bañ kuñ yar la waaw kon loolu rek laa ci doon am lu ma ci doon dolli nga xam ne daal maam nekkuñ ay gaay yoo xam ne dañoo ñëw rek ñu solal leen ay siila ñu toog ay dongoy daara yu ñu def ci li ñu war a def ci ñoom bañ ba nekk ca ñoom kenn ku ci nekk da ngaa tëj sa place ñenn ñi teg seen ngir ndigal ñun ñëpp ñu dajee fi loolu mooy illa loolu rek moo ma fi taxoon a taxaw kii nag day sama mbokkum daara moo xam ñoo bokkoon benn lal bi ñuy tëdd moo tax bi ma dikkee fekk ngeen koy ah, kii ma fa yéene jàpp ci wax ci wax ji na xam naa ne wax ji wax lépp mënul nekk waaye dina am loo xam ne dinaa ko mën a yegg jërëjëf sëñ bi. ناديت ربا واسعا قد قادني بالجود asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi siyaare waa daayiratu tarbiyatu wa tarxiib li kulli man bi xidmati Cheikhul Xadim ñun dongee tarbiya nekk fii ci waañ wi féete leen fi suñ mbokki murit saadix yi dikkoon fii di fi jël si ay image ñu di leen leeral na ñun ñoo nekk fii ci waañ wi kii di wax ak yéen mooy xaadim jaxate moo fara fii ci waañ ak sëñ Ibrahima Diagne mi nga xam ne moo yor wàllu bat yi nga gis ñu sol ko siile yi ak laaye yi ak bat si moo ko yore li ñuy feeñal fii nag ci liggéey bi mooy dañoo bëgg képp koo xam ne nii gis nga borom siile yi nga xam ne ñun ñii ñoo yore seenu waañ niñ ko fi ni ñuy doxee fii ci waañu nag mooy góor gu nekk junni ngay joxe jigéen juróomi téeméer la ca des mooy jaayante jaayante nag kenn ku nekk la nga man xeebun dërëm waaye newun junni lépp lu ci waaye joxe daan la ko daan la ko dugalal ci liggéey bi fii nag mooy waañ yi li ñuy defalee lépp loo xam ne nii organisateurs yi nga xam ne ñoo ne ci màggal gi te ne ci poste yi fu demee nag kër maam jaara gi wala teen bi wala barab ba wala min bar ba seeni i fii lay jóge waañ waa ngi nii mooy daayira tërbiye yi ki ko jiite ci jigéen ñi di soxna Xadi kii di wax ak di wax di wax ak yéen ndongalu xeebu di xaadim jaxat ku ci am pas-pasu barkeelu ci liggéey liggéey soxna jaara bi wala ci màggalu poroxaan bi bu soobee yàlla loo fi def loo jotal rek daan la ko loo fi joxe rek bu soobee yàlla daan ko yaatal ba mu jot ba mu jot julliti yàlla yëpp waxuma la dong yi liggéey waaye dana fexe ba julliti yàlla yëpp jot loolu daal lañ leen di wax ci kàddu yu néew la ci des si wàllu batsi yi ak laay yi nan cee doxee daan ko jox sëñ Ibrahima Diagne mi nga xam ne moo yor kay bi nii mu leeral leen ko la ce des te nga xam ne aju na ci wàllu jigéen ñi ak ni muy doxee ci waañu ci wàllu togg beeg yàq bi soxna Xadi Sise dana leen ko jottali ak soxna Ayda Jéey ak soxna Xadi Jaxate kon bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Euh, ñoo ngi leen di jaare yéen ñëpp ñi ñuy déglu ñu ñuy seetaan yéen ñëpp ñoo leen di jaare euh, wàllu batsi yi ak wàllu laay mooy gilet yi ñu solee mbooleem ñuy liggéey ci barab yi ziar yi moom lañ yore Euh, doxin bi nag mooy euh, képp koo xam te ne wàccoo nga ak sarti daayira bi boo ñëwee ñu jox la bats jox la laaya noonu la liggéey bi tëddee ba nga xam te ne di ko mën a sol fépp fu ñu war a foo war a jaarit kenn du la téye loolu ñu ciy jublu loolu mooy li nga xam te ni mooy doxin bi euh, képp koo xam ni tamit dikk nga ca bëgg ci leeral it boo dikkee dañ la leeral asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala yaa jamaahatu muslimin wal muslimaat asalaamaaleykum ñoo ngi leen nii di leen siyaare bu baax a baax di leen baalo àq di leen baalu àq di ñaanal Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké mu yàgg fi lool te wér ñu yàgg ci ginnaawam ba fi mu bëgg a yóbbu liggéeyu maamam ba mu eggale ko ñu ànd koog moom ci barke Cheikh Bassirou Mbacké ñoo ngi siyaare suñu mbokki taalibe yi waa daayiratu tarbiya wa taraxiya li kulli man yaxtam bi xidmati xadim suñu jawrin di Serigne Ndiaga seet ak ñi ci ginnaawam ak man mu xeebu mii ñu def ma jawrin ci jigéen ñi soxna Khady Cissé maa ngi leen siyaare bu baax a baax waaye ñun daayira tarbiya de ni ñu doxe ñun jigéen ñi moom dañoo ànd rek fas yéene liggéeyal mu Mountakha moom seen Bassirou képp koo xam ne nii ñëw nga pour bëgg a bokk ci daayira bi jigéen bu fekkee ne bisu poroxaan la yaa ngi wàccoo 10 500 rek nga bokk ci programme ci ren loolu la ñu doxale bu ko defee suñu cotisation par at jigéen 12000 la loolu la ñu wàccoo suñ fi ñëwee dañu bokk di liggéey rek di togg di yàq di jébbale li soxna jaar a doon def suñu toggee ñoo ngi yóbbu barab ba ñoo ngi yóbbu teen ba ñoo ngi yóbbu minbar ba ak kër maam jaara ja suñ paree jaami yàlla yu ñu yàlla booleel ñu leen di sédd lay seen àq ak seen yelleef ci waañ yi ñun nag ñu doog a xewlu bu desee ñun danañ xewlu bu desutit ñu sant yàlla rek te xam ne kuy liggéey moom noonu rek na mën a mel wàllum jigéen ñi nag wax dëgg yàlla ñëpp jàmbaar lañ ñëpp ñëpp ñëpp nag kenn amu ci tànk ginnaaw ñëpp tànk kanam ku fi dikk ku ne sa yéene sa pas-pas rek nga fi ñëwee kon ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm te di leen gën a soññ ñu gën a góorgóorlu te xam ne liggéeyub Serigne Touba du yomb képp ku cee yàlla ba dimbale ba nga bokk ca kon nga war a góor góorgóorlu takk laxasaay ñun de fas nañ yéene ànd ak ñëpp ak ñu koy liggéey ba doj ame xaw Seex Muntaxa yàgg fi lool te wér ñu ànd ak moom jigéen ñaa ngi ñii daal ñoom liggéey rek moo leen ñor wax dëgg yàlla liggéey rek moo leen ñor li may tuuti tuuti gàtte xeebu lool nag tuutaluñ ma wax dëgg yàlla te lépp jëmmi Seex Muntaxa moom sëñ Basiru salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokki julli mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen baal ak di leen baal ak di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi suñu yaakaar tey ak ëllëg Seex Muntaxa Seex Madal Basiru ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool mbàkke te ba lépp lu mu naal ci yoonu sëriñ Touba wi maamam rek mu liggéey ci lu kawe eggale naale magam ju baax ji mu fi bàyyi ba naal naale boppam te àggale ko ñu teewe ko ñun taaliba yëpp loolu jàllee ñoo ngi ziyaare dongay tarbiya yëpp dongay wa tarxib ku li man yax tam xidmati seexul xaddim ñoo leen nuyu ñoom ñëpp di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay di ñaan màggalu poroxaan gi tombeeg euh, Seex Muntaxa doonum Serigne Touba ci sunu kanam ñoo koy ñaanal màggal gi yàlla na ko màggal ay téeméeri téeméeri at ci barke Serigne Touba maam li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaatal minna na baalik maam bu samba ñu ne jaara am nga tawfiix ku gëm fa bal tudde jaara turandoo jaara ajjanaay wàccuwaayam koo a doon santal ci mbàggi fi jaara turandoo ajjanaay wàccuwaayam koo mën a doon santal ci mbaax yi fi jaarat